falsafa nag tey falsafatul wujud tey nag al wujudu bil maanaal mujarrad lan la moo tax sax tubaab bi dañ naan ñoom métaphysiqiya xuraafa la ndax métaphysiqiya mënoo ko bërëxana waaw loolu loolu loolu loolu lu lu am solo la maanaa léegi ilmu moom loo mën a jàng xam ko la mu maanaam léegi yow foo ko appliqué nii lay joxe résultat bi benn la falsafa nag du du loolu moom falasifa yi moom maanaam dañuy wuute ci ay gisin ndax seen société yi ñu dund ak seen i problèmes yi ñu dund ak seen nangam nangam tey mic misaal Nietzsche Nietzsche Karl Marx Nietzsche maanaam weddi na yàlla xam nga lu tax Nietzsche weddi yàlla daa sonn wéri di woon mujj na sax day drogué woo ndax bu drogué woo métit bi dutu ku yëg Ibn Rawandi lu ko taxa lu ko taxa weddi ah moom it dafa sonn gis lu ne nee na lu tax boroom xam-xam yi amuñu dara maanaam léegi ñu xamul dara di am dara pour moom daal loolu moom nekkul lu maandu yooyu yooyu moom ay problème lem la ci ci yoo xam ne mooy mooy juddu mooy juddu lu xalaatu perso bi tey xoola Kant Kant ab nasaraan yi la Descartes ab nasaraan yi la ci kaw noonu boo demee ci Heidegger ak Nietzsche ñoom ak Karl Marx ñoom ñoom ay laa diini yi la ñoom ñoom ñoom gëmuñu diini boo demee ca boo demee ci ay Schopenhauer ñoom Schopenhauer ab kii la ab ab ab ab nasaraan yi la boo demee ca waaja raayudu la elmona suma kant yi Freud suñ mën Freud maanaa léegi moom mulxid la mulxid waaw boo demee ca cent pour cent mulxid la yooyu moom si yooyu yooyu itarba la mu ne Saint Paul Sartre day murxid la mu ne bi mu demee bay bëgg a faatu dénkaane ne ne soo su faatoo dañ koy yóbbu ci àll ba na nañ wut ab ab ab ab seen labbe yooyu yu dëkk ci àll ba waaye nag labbe yi dëkk ci taax ñoom ay say say lañ waaw nañ ko wutal ab labbe bu dëkk ci àll ba mu ñëw ñaanal ko kooku kon gëm na di wala insaltuhum jëm wax rek ma xaswa waati wala adra xool na laa kon léegi elmu moom tasawuf moom bu falsafa bokkuñu moom waaye nag épistémologia falsafatul ulum nga xam ne épistémologia mooy dirasa mooy naqdi dirasa naqdiye lii mu almu almujasat al ilmiya kooku falsafa la pour pour ilmu avancé faaw mu am alaqa falsafa falsafa koy naqd ndax léegi di nga ca Kant ba muy ba muy naqd al al al alaqul xaalis léegi yow kat sa mabadiul aql yii ñuy wax nii ndax ndax wér na dégg nga Kant almakaanu wa samaan amut makaan asamaan nit moo mënta xam dara lu may da ko da ko teg ci xaalab yooyu makaan ak samaan waaye samaan ak makaan amut nga xamante ne léegi léegi ahkaam qabliya la li la aql waaye mënee su ko bërëx na kon moom seen alaqa moom moom alaqa naqdiyee la falsafa yi def ci ilmu waaye ilmu moom lu leer la falsafa nag moom mën nañu cee am ay ay ay wute juru jeex bu dee falsafa islamique falsafa islamique bu ci bu ci jiitu moom maanaa bu ci ne ab tajriba la waaye tax ma tasawuf ko jiitu moom alamul islaam yi moom tasawuf moo fi jiitu falsafa falsafa moom moom moom ca marwaan la ah marwaan la te kooku moom yàggut moom daaru xikma yàggut waaye nag ñoom ñaar dañoo am alaaka ci taxbiir bi ni ni ni ñuy taxbiire bu dee bu dee taxbiir mu kasaf la li wax ci Cheikh Abdou Khadir Jilani Cheikh Abdou Khadir Jilani moom samay gëstu moom moom kiiwul ci falsafa dara waaye nag taxbiir bi moo falsafa taxbiir bi ak falsafa dañoo daje fenn ñaar ñuy dem daje fenn feltoo fenn fañ feltoo foofa mooy falsafa mooy mooy taxbiiru aqliyul mujarrad falsafa ne maa ko moom tasawuf ne ko beeboo daal di wéy moom waaw taxbiiru mujarrad boobu falsafa ko gën a aadawoo waaye mooy tasawuf day ci lañ ko gën a miine ah diggal li ma waxoon sànq ci xalaaj ayna laa kayfa yusalu bi ayna wa huwa allazi ayna al ayna kooku taxbir daqiq jiddan la falasifi ne ne ne ñoo ñoo ko moom ay ay wa ñooy leen jël leen ak man kenn dina ko ñuuxut déedéet mu ak a neex ak man la wax moom waxu la de waaye boo ne neex na nag ñu am beneen jaay ne ko lu tax nga wax ko xut bu xam nga nag nun nun nag sunu muskila mooy isqaat li ñu tuddee al isqaatul falsafi yi ca Heidegger isqaat projecting isqaat maarifi yi jël dara maanaam solal ko jël mbubbum sa maam nga ne solal ko sa baay sa baay daa gàtt sa maam njool nga ne mbubb mi nag ñooy tolloo sa maam daal moom bu moom soloon sama bàyyi sol na ko même ci mu képp ku ne xam ne seen biiru maa di yàlla loolu loolu loolu moom ku ne xam ne ne moom maa di fii yan wala lépp mënut a nekk léegi nag diwaanul aarifina billah suufiyanke yi nga xam ne ñoom ñoo koy wax kooku seen terme la seen concept la seen mafhum la seen alam la nee ñu ñoom téeméer ak fukk ak ñeent ñoo fay teew ci alamu islam yi bépp nag nga xam ne day tolloog jaamia kon léegi moom da ko kon léegi day mel daal kon yenoon mën a jaamia la mooy mooy téeméeri saar yi nangam fukk ñeent ñu ne ñoom ñoo fay teew foofu nag moom amul tànn sa bu la neex de amul kat maanaa kat sama baay moom faaw mu teew ba déedéet kuy sa baay dégg nga Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa cëmb saay rek da daa gis ku ñu soo soow te fa huwa kal xer di la da rahmaani borom kaala gu rëy nangam nangam ah wala boog tasabuhan bil ulama il aadalin man xëmmuhum ñoom ñooñu kiiral jëri li kullahin ñooñu moom am na kay am na ku ma fonk ku ñuy wax maam ansu ñang rahimahullah ñu ngelaw na fan yi ca kàngam ya la bokkoon kàngam ya maam su ñang ab séréer la séréer ay nijaayam di ay soose nijaayam di soose nijaayam jóob la daanama wax naa ma nijaay la la ma la wax nee ma sama day jóob sant jóob nijaayam ndeyam soose la baayam di séréer waaye soose yaa ko yar moo tax ñu yar ko ci diine jooju daal non non ko yar kàngam la ak xutbu bii ak xataab yi xam nga ay xataab la xutbu bi bi njiit la nag waaw xutbu samaan la xutbu nangam xutbul xawsu nangam waaye xutbu mooy ñooñu maanaam kooku noonu ci gaa yooyu la bokk demal ca ku nu jege sëñ njëga silla danaa koy tudd xam naa sax moom xam naa ne tudd gi ma tudd xam naa moom du du koo gënal man maa bëgg a wax gone yi ne leen promotion laa bëgg a jox gone yi li ngeen di laaj am na de am na lu existé la sëñ njëga si la sëñ njëga si la ci la bokk de daw salaam gii rek maanaam nga xam ne moom ban koor la bokk al abdal kooku sëñ bi kilifa la de moo ne moom di sëñ bi këram gu day duxat al abdal seen koor bi mu ngi tudd xadratul budala xadratul budala i la tudd du xadratu abdal de xadratul budala i ñoom ñoo tudd abdal seen xadra bi fan la ne ma nga ca kaw baytul maamur ñu nga xam kon kawe nañ ko ndax suñ bi de sa njëga si la mii ca la bokk xam naa ne moom bëggut ma ma wax loolu fanaan kon léegi yow laaj bi foofu moom leer na la foofu mën naa leer moom foofu foofu mën naa leer maa mën su ñang moom nelaw na fan yee sa sa tey njëge si la mu ngi fi yàlla na fi gën a yàgg werd tërbiya la wala tarqiya werd lépp lay doon tërbiya ji mooy cosaan li moom sama mag siñ taala nee na daa laaj suñu abi bu ilimaan ne ko kan mooy almuraqi ci ci tariqa bi suñu abi bu ne ko laajoon naa ko sa sëñ daam abdourahman sa maam bi sëñ bii nee na mu ne ko mu ne ma sëñ Bamba mooy seyku tarqiya bi ci ci yoon bi am raqiya bi képp ku liggéey fenn ba ñu war laa yéege sëñ bi lay yéege boobu laaj mu leer na moom waaw sëñ Abdourahmane loo ma wax loolu fu waaye ne boo werd wi moom werd wi nag bu dee da nga koo jël an isnin xaas bu dee da nga koo jël nii rek moom amu njëriñ moom ak am na ñañ kay saatuwaan ne bi jàng ay xan loolu moom ab yoon la sëñ Tuubaa nee na ca durusam yi nag ca mañ moo xam ak nangam nangam nee na boo jëlee tur yàlla min xëyri isnin loolu moom mu jara doo ibaada la soo ci bëggee boo ci bëggee ay leer ak secret da nga koy tuyante góor ñi sëñ Saal Ndoka nee na ma sëñ Saaliw lay na sëñ Saaliw ne ko jëfandikoo tur yàlla te amul ndigal mu ne ko ku ku ci amul ndigal du seen pëndub ka ci am ndigal tasawuf nag noonu mooy laa tafaloo shay an doonte ne la Sëñ Tuubaa nee na la lépp loo xam ne aada la lu dul jullee war ak yooyu laaj ci ndigal takk soxna ak lépp da nga laaj ndigal nee na sax ba ba ci sax jihaad da ci laaj ndigal ndax lépp lu am xas xusasu nafsu lu mu dugg rek nee na da ci laaj ndigal xam nga jihaad am na ko jihaad dafa neex aj makkat dafa neex kon laa tafaloo shay an lu dul farata yi ci dul nga am ci islam loolu moom tasawuf loolu la maanaam maanaam falsafa sëñ bi satxa chat chataxal maawu isaa jaawara isaa jaawasa xadda saati maanaam léegi liy nduru ay chataxaar ci suufiyanke yi maanaam léegi ndax falsafa ji njaxasooloon moo ko indem déet de maanaam loolu la ñu tuddee kalimaatun xaliqa kalimaatun xaliqa tajriba suufiye bi mëne su koo mëne su koo wax su su fekkee bi amutu baatam su su su forcé indi ko baat ya dafa xat kalimatu xalixa su boobaan ci nag la muy wax du neex xam xam nga xam nga am na philosophe français ba waaye te muy ab mathématicien bu mag ba xam nga nu tuuti ah day wax lu lu am solo ne ne xaqiqa moom nee na buy ñëw ci moom nee daal day nekk wam de bu leer nañ ci kanamam su ko bëggee jàpp mu rëcc ko xam nga ko xam nga kon moom léegi moom la la la vérité absolue gis na ko nee na jot na ko waaye mënu ko téye mënu ko capturer kon kon kooku moom su ko bëggee temps temps biir ci ab baat du ko am ma nga xam ne suufiyanke yi ca alxarnu saani hijri yi jëm saalis ay ay sataxat dikk na ndax abu isidul bustaami ma nga fa abu isidul bustaami xalaaj wala boo ko junee di da ko daal layal ay ay batam nga xamante ne ajit ajit xalaaj ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu nu ruhaani xat xal naa badana fi doolu suñu fàllu buso doon wax naan ittihaad ak xolool fi doolu loolu baat yooyu mu sësi xoon yi ñoo ko fi indi wax wahdatul wujud alxulul ittihaad mustashrixoon yi ñoo qiraa ak turaasul islaami yi bi uyuuni ak turaasul xarbi yi xéegal xéegal philosophe allemand bu mag boobu lim gëm mooy falsafatu wahdatul wujud la gëm ñooñu bu bu dee qiraa sun sun sun turaas bi ñoom bu ñu gisee lu niroog moom ca Ibn Arabi bi dañ naan wahdatul wujud la waaye wahdatu shuhud la hunaaka farq bayna wahdatu shuhud war waxdatul wujjoon waxdatul wujjoon mooy lépp yàlla ak lépp jaxasoo waxdatul shuhud mooy lépp la sama xol bi gisandoo foofu nag alxal bu ci sufiyanke yi yataqallabu taqallabil ahwaal waaye alfuaadu mooy maxalul maarifa ñoom bu ñu ne alfuaadu ci ñoom mooy maxalul maarifa daa mi suñu biir am na laaj bu mu laajoon de laaj boo laajoon ti ok ok ok waaw am na mës na maa gis xadis boo xam ne imaamu Suyuti moo ko riwaaya di ci tudd ay aqtaab benn majalla bu bu bu jóge woon Arabie Saoudite ci laa ko liri woon waa ji nag di di wax naan déet maanaam day wax rek xanaa moom li muy ab su su su su benkee tax ku ne xam ne imaamu Suyuti moom xaafis la moom al al alxaafisu Suyuti ku ne xam ne ko moom loolu leer na moom ku ne xam ne ab suufiyanke la moo ne sëñ bi am na lu am na am na lu gën a xoromu Ibnu Taymiya kaana qaadiriyyan Ibnu Taymiya qaadir la de qaadir ab qaadir la de qaadir Ibnu Taymiya ca fatawaa ji xanaa mooy jusuwut te ci sa raxasar ba yaakaar naa 19 ba mu jàllat ba maa ngi ca maanaam léegi su Cheikh Khalid Jilaani waxee ne yàlla nee na ma da koy sara da koy gëm a gëm ba di di ko sara maanaam léegi alxirqa kaala yooyu ñu ñu ñu ñuy kaalaw ci tariqal xaadir yi lañ ko kaala ibnu Taymiyya rahimahullah xaadir la demal ca Risaalatul Fuqaraa su fekkee pire la demal ca Madaarij as-Saalikiin faslun fil firaasa firaasa ba Ibnu Xayyim ne nee na la lu masaari xew dañu koy wax bi bi ne ci biir ci kaso bi su fekkee la am kas foo waaye salafis yi ñoom day mel ne xam naa nag fataawaay yi daa bari ba mënuñu koo liir lépp xam naa waaye moom ab su fekkee la de xaajir la boole ci Sëñ Tuubaa moom du tudd ci li ma ci samay gëstu laa de fi mu yamagoon du du du tudd Ibnu Arabi al-Xaatimi du tudd am na Ibnu Arabi mu muy tudde ca si ca silsilatul Xaadiriyya kooku du moom ca silsila ba al-Xaatimi laa wax du ko tudd gu ma gisu gu ma fu mu ko tudd gisu gu ma tudd Xallaaj gisu gu ma tudd Muawiya waaw ndax Sëñ Tuubaa mawqif lay joxe mawqif tuddul Muawiya ndax Muawiya ku Muawiya ku mel ne man moom moom moom daa xoromu ci man waaw radiyallaahu anhu radiyallaahu anhu de raxma raxma ku say ka nag moom daa xoromu waaw moom Muawiya moom problématique lu islam lu ci yàqu rek ci moom fa la tàmbale waaw islam waaw déedéet déedéet déedéet jubluma ci islam islam yàqu ma yàqut musu jullit ñi ñoom problème bu ñu am Sayyiduna Muawiya radiyallaahu anhu ci la soqi ko ah dégg nga ma ne ah Sayyiduna Muawiya radiyallaahu taala anhu ci la soqi ko ah ma ne xam xanaa nangul naa ko xaare maanaa ko maanaa maanaa kon Sëñ Tuubaa moom du tudd Ibnu Arabi du tudd Xallaaj du tudd Muawiya léegi Muawiya moom mawqif mawqif aqadi siyaasi yi maanaam waaye bu dee fii moom mawqif irfaani bi mooy noonu ci suñ réew mii sun maam yi ñi nga xam ne dañoo nekkoon lu ñuy tuddee wahdatul wujud sun maam yi ñoom loolu lañ gëmoon yàlla ak ak alam bi benn la léegi nag ñoom roog seen roog seen day mel ne booba àgg nañ ci nag léegi tawhid ju xaalis waaye ñun dañoo gëmoon ne yàlla ak alam bi benn la si Sëñ Tuubaa bu tuddoon Ibnu Arabi yi boo yeexee dana am ñu tarxiis sëñ tubaa mujtamaam bii alfatti yi gis na ne ñoom suy tànn ay ay ay ay namaasij du tànn namaasij boo xam ne da xaliq la daa am lënt maanaam ibnu arabi ay waxam ak xalaaj dafa lënt daa lënt ci ku ku aggur ci boobu mustawa moo tax sëñ tubaa du ko tudd ndax bu ko tuddee rek dana am ñi ko gëstu ji seeti ko te kon bi ko seetee man mën nañoo tarxiis man moo ko fam bo noonu laa ko xiraab moo ko fam léegi nag sa sataxaat satax sataxu mooy sataxal maa isaa jaawasa xadda saati baat bi maanaam yi ngay wax bu ëppee këmbkaay li kooku satax da nga bëgg a wax lu loo mënta wax kon sataxal maa jaawasa xadda saati palax nag palax kooku moom kooku moom ñëpp ci yam suuf yaa ngi yëpp ko def yëpp ko def suuf yaa ngi yëpp ku ci àgg ci benn niveau bi ñu ko waxati Cheikh Xaadir Jeylaani bu ma saa wax ne ana laa nekk ci xaal ana laa bu bu bu dikkaatee ñu ñu ko ah sëñ bi da nga wax ne ana laa mu ne boo su su ma ko waxatee rey leen ma dégg nga de rey leen ma. kooku satax la li mu bëgg a wax xoolal xalaaj maa fi jubbati ki nga ko waxati nañ dem ci abu yasid abu yasid maa fi jubbati ilallah moo moo moo moo moo ko daa wax dëgg-dëgg xalaaj xalaaj ci wax na ko maanaam imaamu junne da ko daa daa leer maanaam moom moom mbindeefam yàlla la lu yàlla bind la xoolal ci ci ci ci ci xalaaj bañ koy àtte ne ko seedeel ne yàlla kenn la mu ne tuuti naa ci seede ak ak ak ak wéetam googu mu wéet tuuti naa ci tuuti naa ci seede ko foqaay dana kii la bind leen weddi na fuqaha usulta diggal de fi fi mu toll moom fi mu toll ashhadu an laa ilaha illallah moom dafa jàpp ne loolu shirk la moom xalaaj ne man maay seede ne yàlla am na mu soog a am amul yàlla gii maa koy signé déedéet mu ne loolu loolu moom du ko def kooku kooku niveau bi dafa dafa kawe waaye fu fu fu fu xaaw sul sul te ñoom daal ne am nañ buntu ñoom. ah xaadi bi bi bi ñu ko jëkkoon a booleel ca ca pale ba ca ca kaso pale ba ne ko xoolal ñu ba xam aqidaam moom daa for mujj jébbalu ci ci xalaaj ba bañ ko reyee mu ne buur bi ni nga ma def. des na la ko def boo boo ba dañ ko rey nga xam ne xaadi bi ñu yóbboon ci xalaaj daa mujj far moom léegi in biha kon léegi li muy wax la ama yi bu ñu déglu ak problème bi amoon nag sufank yi nag ak ak nag sulta moom foo ko fekk mooy sulta bi mooy dongo yu bari yi xalaaj dara am ay dayra yu bari di ko ju xalaaj ci la ci la li ñu tuddi tarixa tarixa juddoo ay dongo yu jóge ci ci ci maanaam aqalim yëpp ñëw di ko seere di ko indi addiya ah bu buur bi nag da daal jaxle xoolal Haroun Rachid ndeyam daa toog taxaw ci balcon bi benn benn sëriñ romb fa gars yi di wër ko ku ne bë bë bëgg koo raay mu ne Haroun yow doo buur de kee kee mooy buur mbooloo bi ba leen bëggoon a dajale da nga da nga yëkkati yëpp te xool kii moom. yaakaar naa sax sëñ waa bi diin ba muy ba ba muy siyaare ci te amir ba ne ne ne day toog ne ba ba mu fi mu soog a foo ndoj wa mu ñëwee nit ñi daal ni nii mu ne comme doon faras tax daal di jooru kooku mooy suuf yanke ko sinon bi din moomee nit ñi randu may ko mu fon fon ndoj wa dem na ci ca teen ba bëgg a jàpp teg loxoom bi ci pind bi ndox mi saw ba ci kaw kooku kooku nag suuf yanke la ami karamaatam ami yëf xam naa kon surtout moom kon soo tax moom ci jëpp la moom ñëpp ko de waaw soxna Tien Siré ba ñëpp de ku ku ne da nga am xaal boo xam ne mu la ngay wax mu xëjut ci baat yi waaw.
nit léppam du bon seytaane rek la léppam di bon nit léppam du bon seytaane dong la léppam di bon moo tax fi toll su may tudd tey Max Nietzsche Nietzsche moom nga xam ne Nietzsche ma waxoon de God is God yàlla dee na mata ila xam naa lu tax ma ko xam naa ko àgg na ci xalaatam ne kat al alxadaara alxarbiya bu bu ñu déclaré wu ne yàlla faatu na kon léegi xadaara bi day taxaw mu déclaré ne yàlla faatu na pour pour léegi déclenche bi ba bañ a taxaw kooku xam naa ko xam naa xam naa xam naa sax bi lu mu doon léegi nag moom am na yu baax am na am am na yu baax yoo xamante ne tey demal ca sampol sart almaahiya lanti al wujud wal maahiya ayuma asbaq maanaam léegi moom moom da moom dane wujud bi asbaq mi minal maahiya maanaam tey foofu africain bi nit da ngaa juddu ñàkk mën ngaa am sa sa sax siya yaa koy binaa kenn dul ko binaa africain yi yéen di ngeen a ñàkk nangam nangam xam nga sart de sart ca ca salon adabi bi ca France bi nga xamante ne ay ñoom ay ñoom kii waay MSCC rek ñoom ca la nekkoon maanaam léegi moom daa daa bëgg a wax wax ak africain yi ni leen mën ngeen a dem yéen mbir mi almaahiya du ne moo jiitu alwujud xam nga maahiya moo jiitu alwujud mooy lan alxadariya mooy yow ikat toit bi dañ dañ ne kat yéen africain yi du ngeen dem mu ci adduna da ngeen a juddu nga xam ne yéen waru leen dem sart ne déedéet mën ngeen dem kooku kon sart kon donte ne mulhid la sart am na njëriñ daal ci ci ci man demal ca Max Max daa waxoon ne addiinu ufyun man xam naa lu tax mu wax ko bi sëriñ si notee xeli nit ñi dëwi yi leen di leen utiliser mu ne pour ñu européens yi dem nañ xam nañ génne diine ci seen mbir programme ndax addiinu ufyun indi lu ma ma indi la ci misaal jamono yi nga xamante ne su kookul xufraan patron bi bu demee bay faatu njaaloo noonu rek ne nit def nangam xis bi day ñëw ne ko loo def ne ko man de damaa njaaloo mu bind boo fayee un million ñu jëgal la waaw rey naa nit ne ko da ngay fay cinq million ñu bind su kookul xufraan bu nappee bind daal ne man signé naa am naa sulta ci yàlla signé naa ne yow doo jaar jahannam luy loolu Mar- Martin Luther du king de Martin Luther ma dëkkoon Allemagne da- daal di ne loolu mënta nekk kele feneen ba dëkk Hollande ne loolu mënta nekk maanaam léegi yow kës bi amul ala ma ne nekkul wasiit sa diggante ak yàlla kooku sëñ bi kooku sëñ bi loo loolu am solo la te kat ma Martin Luther moom moom nga xam ne ko am solo la ko bon la ci bu dee xas islam demal ca Mozart Mozart ak Beethoven seen woykat yu yu mag yooyu sy- symphonie yu mag yi booy Mozart Mozart ku am solo la ko bon la de ndax day xas islam te def ñaar yi bokkuñu maanaam maanaam man Cheikh Cheikh Anta Diop mooy sama idole Cheikh Anta Diop lépp lay jàng lépp lay jàng lépp jël ca la dëppoog la mbëgg ma damaa mës a dugg dugg ci armeel yi summi samay daal si yàlla jëb xëy ma ma ma gis Mbacke Abdourahmane ah waaye bu subaa jóg yow li nga wax nag ak dàll yi nag ginnaaw xat na mënu faa ne nekk man di di wax ma ne ko fii de sëñ Abibu Mbacke Iman daa ne fi su summi dàll la mu mu ne ma ah ko kooku dee mag la ma dem ndaam foofu si si ndaam doon jàngale jàngale suñu fële Cheikh Moussa sëñ Xaadim Lo sa moom ñu magal ga rek ñu ñu jóge ci kër gi war a dem ci cérémonie bi mu ànd ak ay ministre noonu dëkkul waat ay gaay bi bi ñëwee ba ba agsi foofu ma summi sa sama dàll ku ñu wax si sëñ Cheikh Mba Mbacké ne ma ah waaye yow lu tax ngay summi dàll yi ma xam ne daa xat ma ne ko man dof laa xat na xat na mënu moo fa nekk di ko leeral maanaam man léegi ànd ak ministre ak si fii di su te su te su ma sorgale yi ngir àdduna xaatuma ko barab bu tëdd bii fax la na na alayka innaka bil waadil muqaddasi tuwa man fii ma nekk damay subi dal yi koo ma di àndal yaa xam koo kooku loolu Moussa Diouf moomu ak ñuy wax ci falsafa bokkut waaw ma maanaam man tanaaxut bi nga wax tanaaxut amu ca ku ku ci nekk damay jël ci yow li ma soxla loolu it am njàng la ci la ci yéen bul bul bul xat dënn jël kii rek weddi kee man ñëpp la jël waaye nag ku ne nag la nga baaxale la la suñu daa waxoon ku ne la la la nga baaxale laa bokk ak yow loolu xanaa kon leer na xanaa de amutoon beneen la laajam bi mu laaj nag ci iskaan yi waaw mooy laati iskalam bi
mustalahaat yi lay watal rek waaw kay déedéet déedéet adab suuf waaw xam nga léegi suufiyanke bi mën ngaa doon lu ne te doo xam tur wa misaal tey nit mën nay teewe diiwaan te boo ne ko woon waaw yéen fi ngeen di teewee nu mu tudd moom xamu ko mën ngay teewe diiwaan doon fa kilifa waaye saw làkk ngay waxee saw saw làkk séeréer ba mara joola waaw ndax léegi diiwaan du du aw tur la rek ci arab ya waaye boo demee ca boo demee ca wolof ak séeréer ak bambara mën nañu ko wutal aw tur li am solo mooy jëfu ja moxtawaa bi moo solo baat bi baat bi xam nga léegi nee nga nee nga adabiyat al al tasawuf bi bi luxal arabiyya kooku nag dëgg yàlla ñoom seeni làkkin la ñuy wax waaye maam an su ñang mën naa am mën naa am boo ko laajoon ci séréer mu wax la moom lan lan mooy diwaan foofu nag fi mu toll ah la- laaj bi dafa yeex bu doon da mu ko laajoon ca ginnaaw mu jaral ma dem ba ca moom ne ko ne ko diwaan mooy lan ci séréer lan moo lan mooy lan ci soose fi mu toll si sa laaj bi am na njëriñ ci man da da dana ma jëlal gëstu ko daal loolu danaa jokkoo ki ay ay ay ay ay doomam ba xam ne ndax la laaj nañ ko mu déet waaye problème bi nag mooy doom yi daa mel ne xamuñu ko woon xanaa xanaa kay ma ma gis waat rek ma xam subhanallah xam nga xam nga Cheikh Cheikh Cheikh Abdou Aziz Dabakh ci Iblis Iblis mi kalaam Cheikh Abdou Aziz Dabakh Cheikh Abdoulaye Moubarak sabbihisma la yem sabbihisma allo woom foofu foofu la yem moom moom ummi yi la jàngut jàngut moom te al muhaddisuuna daana ñëw ci moom ay ahadis da'ifa ak saxiixa ñu joxase ko ne ne ko suuf yi bi xoolal ñu ba xam hadis yi ndax wér na mu ne jàng leen ba bu njàngee mu ne gis naa ci boobu tey leer yu yéen di bi aleyhi salaatu wa salaam bu bu njàngee hadis boo xam ne ni daañu bi la mu ne boobu de gisuma ci leer leer leer leer gu cent bi aleyhi salaam xam nga loolu kon loolu kooku moom ba basiira bi muy gisee leer ak yéen bi aleyhi salaam lay gis ca hadis ba kooku moom kooku te te moom moom jàngut ndax moom mënu laa wax concept yi nga xam ne moom la mu wax si nii waxee mënu ko wax waaye moom lim xam lim yëg lim gis lay wax. te te te te te te su boobaa mu hàddisi nii xam nañ ne li wax wér na waaw rabia am nañ ko noonu soxna Astu Gaawaan soxna Astu Gaawaan rabia la da da danaa ko layal soxna Astu Gaawaan ni nga ko wutoon këram am courant ndax moom day gis guddi soxna Astu Gaawaan moom moom moom soxlu làmp ab làmp bët yi day gis ci guddi gi. soxna asugaan moomu am na ñaari doom yu jigéen ku ñuy wax sëñ Aliou Gadiaga dëkkoon njëreem mu dajeeg moom damaa xam ne sëñ Aliou Gadiaga dafaa dem xaw ma mu ne ko sëñ Aliou man de dama am soxla soo xam ne doomi sëñ Bamba ju ma ko wax dana wax ba dem rek mu ne ko waaw wax ma ko bu bu ma ci mën dara rek de mu ne mu ne ko yàlla damaa nattu sopp yàlla nattoo ma bëgg doom te xam naa ne ñaar yooyu mënut a day day ci ab xol ma bëggoon sëñ Bamba yóbbul ma sama ñaari doom yu jigéen yi àjjana mu ne ko boo koy bëgg rek kay ñetti weer ñëpp dem keroog bi ñu nelawee so sono si gaawaan day xaqataay ca ca ca kaw daal ne ne ñoom kat dañoo bëggoon dox sama diggante liggéey bi sëñ Bamba yóbbul ma leen àjjana sëñ bi loolu loolu xoromoo di ñaari doomu jigéen la am ne da leen a bëgg ba noppi sopp yàlla te xam ne ñaar yooyu mënut a daje ci xol ah xalilullahi ibrahima waaw moom nga wax de ah bi mu nekkat da daa sopp yàlla wala yàlla sopp na ko ne ah yàlla ne ko ne ko nag da ngaa sopp sa doom de waaw kon nag nu may def ak ñoom kon léegi rendil ma ko kon moom so soxna soosu soxna moom yi seblaat da koo bëgg a wutal borom kër mu ne ko mu ne ko ko man mënumaa boole liggéey bi xen ma bi mu war a def ak ci diggante ma boromam mënu koo boole ak xen ma borom këram mënu ko kooku kooku am rajo bi xalaat am na am na ko xale bu ne nekkoon ak moom nee nee na ma guddi gi day toog ci day toog ci kii bi rek derabe poos yi mbubb mi daa am ay poos da ciy def miskit mu dëgër moomu léeg-léeg mu mu génne miskit seex seex bu lu yàgg xanaa ba mu seey mu daal di di di wanaasu naan um mi ngi ci kurus gi rek xool ko de daa sopp yàlla ba munta am bërëb kër jëmm ja boo boo ko gisoon am sëñ bamba képp la moom jëmm ji sëñ bamba domm la moom sëñ sëñ bamba kooku loolu la ñuy tuddee almustahtirina ci su fekk yi almustahtirin istahtaru billah maanaam ñoom dañoo dañoo sopp yàlla ba fàtte kudur yàlla nu ñu ko waxati sëñ ba ba de wii dafa am benn taxawaalukat ca ca ca tanta ta taxawaalukat bu bu mag ndaw soo xam ne day taxawaal day day jaay boppam léegi ba de wii xëy xëy daal daal di ko yónnee ne ko ni leen ko dama koy seet si soxna si daal di woote ah seex ma ba de wii de moom a seet si daal di wuti ay trangaam ñëw ñëw moo dikk seex ma ba de wii ñëw ba mu daal di tuub ne ko nag dama bëgg nga nga takk ma mu ne ko man jigéeni orul ay nii ñëw ñëw ñëw fokk sama bët man mu mu mënumaa takk jigéen ñi at gis nga ko de kooku mustatir la soxna si nag léegi sopp yàlla ba noppi boole ko ak borom kër léegi tawasul tawasul wasiila sa borom kër doon wasiila soxna pend bu yoo wasiitu soxna soxna pend bu yoo wa saw jugi taq yi kooka na dana dem wut jëkkër joo xam ne taq yi la nga xet maal ko soo ko defee doon fa soxna jaaratullaahi buso su boobaa li nga bëgg dana am résultat kon ndax bu dee da ngaa istiitaar dem noonu sa ginnaaw doo fi baax dara te adduna dafa yàgg yàlla xalaat mi nga xam ne dara woote woo loolu mustahtir la ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani xar xal naa badana moom nee na li ko métti mooy bay nii gi am ak moom ak yàlla yàlla am mu am daal nee na loolu da ko métti moom moom daal daa bëgg a far moo tax gis nga ko dañ koo bóom lakk ko dëbb ko sotti ko ci ko ca faraat wa dij la loolu la bëgg na daa bëgg a tëmaa yi fii seet lay taxalaa loolu nii xutee foofu nee naa secret bu am solo ci sëñ tubaa yaa rabbanaa lay wax du wax yaa allah yaa allah yaa rabbanaa lay wax xam nga taxa xadaratu rububiyya fi lay woo yàlla bu su boobaa rabb bu ne am na ab jaam bu koy jaam bu dee nag xadatul uluhiyya yàlla ka- kaana allahu wala shay'a ma xalaaj ak xadatul uluhiyya la la doon ci woo yàlla de kooku dafa metti daa wex loo gën a far yàlla gën a bëgg fii nag moom xadatul rububiyya loo gën a nite yàlla gë- gën a bëgg fi ñu toll nii ku mel ne sëñ sëñ Bamba nga xam ne day mel ne ñaari xadara yi ci ci lay boole moo tax nitewul nitewul soxna Awa Jóob suñ maam di nekkoon fa fa moom nee na ba bàyyam la doomam ne la woon mu muy dem bay bëgg a ñénki nag daal jaaxle da ko bëggoon lool ñëw ci ñëw ko dem sëñ bi mu ñëw ci sëñ bi sëñ bi defal ko ne ko ñu ñu fa nekk mu ne ko ñaara fa nekk de ku ku góor ku jigéen mu ne ko andil ma ko jigéen gi ndekete ku góor ga moom it day dem maanaam sëñ bi nag xa- xa- xale si toog la sëñ bi di ko teg ci néeg bi ci wetam ngir daal bëgg mu miin ko nee na ndab li su super bi koy indil mu- moom mu koy indi xale bi koy indi nee na su ko indee fa lay yendu ba- ba ngoon ma yóbbuwaat ko sëñ bi du ko laal nee na bu bu dikkee soxna yeneen ndab la demoon ci sëñ ba dikk na ñu koy comp ke ke kenn ko ne di ko barkeeloo moom sëñ bi mustahtir la kon kon soxna si kon moom li gën nga wut borom kër boo xam ne taq yi la liggéeyal yàlla ci ci- ci moom leer na daal di doon am soxna jaara soxna aw buso soxna aminte loo soxna bismillah li ñuy wax wér wér na kay maanaa yee rëy maanaa yi maanaa yee baree bari ba wali yuy su ko dee génne amul baat bu mu tollool waaw da- da- dama koy firi ba mu gën a leer damaa dem Italie tudde li li may wax tudde ko Château la dem Italie Rome tusbaar la nii ma laaj gaa yi ne mburu mburu yi ana penku ñu ne ma sa bàyyi diw de ñëwoon na fi ab tubaab ne ko penku bar kanam la may leen baax na ñu génn kaaba gi lañ ma sëppal nii kaaba gi li li ma fa- li- li ma juum rek fàtte ko mooy loolu ma ko ah loolu laa fàtte moom maanaam bii ñu noppee fàtte naa ko laal nga ne kaaba gi lañ ma sëppal nii xam ne moom penku ba xam naa ne fii la moom mu jeex takk rek waaw léegi loolu loolu li si si fa doon wax ku dundul loolu yow noo ko koy waxee taxaw kaaba gi nii nga jàkk nga xam ne kaaba gaa ngi nii nga di ko séen te yaa nga romb loolu de moom chata léegi loolu loolu loolu waaye nag sama bàyyi firil na ma ko ginnaaw ba mu ne ma basiira mooy loo bëgg a xam dañ la koy teewalal loo bëgg a xam man damaa bëgg a xam penku bi fi ma taxaw noonu kaaba gi ñu suppal ma ko image bi loolu kon léegi du chata lu chata lu lu wér la li li li li subanke wax lu wér la waaye niveau bi misaal tey mbooloo mu am agrégation bu ñu doon waxtaan xale bu nekk si CP te te toog fa bu leen bëggee sonal lu ñu wax mu ne mu ne mu ne leen waa yéen fu fu ngeen ko teg mu ñëw mu ñëw xamoon sëñ bi ah almustatiroo ne ñoom ëpp nañ ag- agrégation lu lu kii waxoon Ibnu Arabi ba ko ba mu dajeeg Ibnu Rusdi ndax ndax ndax am ngeen li li ñu am maanaam li ñuy wër mooy xaqiqa mu ne ko mu ne ko waaw déet mu ne ko waaw Ibnu Rusdi daal di muuñ mu ne ko déet mu daal di kanam nga ñëgg waaw yéen bi tariqatil falsafi yi ci ngeen amee xaqiqa nun nag xaqiqa dëgg la ñu am kooku Ibnu Rushd li li koy métti mooy moom màggat na Ibnu Arabi di di ndaw moom muy mag Ibnu Arabi lem am amu ko tajriba bi dégg nga ca dégg nga faxru diin daa siy mujj ga daa mujj ne bàyyi na lépp gis na daal moom falsifa ak lépp lim jàng imu kalaam amul njëriñ alxuraan mooy moo mooy dëgg ndax ndax amul tajriba waxi bi amu ci njaayeen bi loo ko loo ko melal ceebu jën te lekk ko du ko tàkkante ko wala njaayeen bi moom boo bëggee mu xam ceebu jën jox ko mu lekk rek lé- léegi nag sotax moom sotaxal maa bi ci ki nga xam ne aggul ci niveau ba waaye bu dee suufiyanke bi suñ suñ tubaab lu wax ci Ibnu Arabi bi nee na Ibnu Arabi bi ak borom xam-xam yi nee na daa mel ne Ibnu Arabi bi moo dugg ci biir xuus ci géej ga indi jawaahir ya borom xam-xam yi mooy ñu taxaw ci tefes gi di ko xaar Ibnu Arabi bi moom kon kon kon moom léegi alxaarifu fawqa maa yaquul wal aalimu duuna ma yaquul aalim bi li wax xamu ko mënuñ ko wax waaye baat bi ñuy jëfandikoo tekkiwul maanaam yi muy tekki ci làkk làkk bi waaye rams la rams nag moo gën a yaatu maanaam moo tax loolu laa bëggoon mu taxaw ci baax ngeen bàyyi xel ci ne mafhum salbi boobu nga xam ne ne gars yi dañu ko bëgg a tasaare ne mu tasawuf ay sataxaat lañu indi dañ caa bëgg wane ne li ñuy wax teguwul fenn ay maanaam gént kii lay bëgg lëkku la loolu laa bëggoon moo gën cee taxawaat asalaam
الكلمة هل هناك علاقة وجودية بع- بين المسار والمسار إليه لا علاقة بوجودية لا ولا علاقة باعتباطية لا علاقة ب li nga si ne علاقة اعتباطية la xonq ak dansé amuñu amuñu relation de nun nun ñoo ko aadawoo rek ne xonq bu ñu ko rëdd rek foofa dansé la waaye waaye bu ñu newoon ñuul bu ñu ko rëdd muy dansé ba tey loola demal ca tubaab ya demal ca naar ya ku ku ci am ab dëj da da da ngay sol sol lu ñuul bu dee nun ci fii ci Sénégal kuy kuy lan kuy muuru da ngay sol lu weex nu ko fab yaddat ay naahu min al xusni alquran albayaadu dana dana ko firi njàqare assawaadu dana ko firi njàqare yooyu kon moom lu am solo la maanaam alaqa bi ixtibaatiya la waaye du alaqa wujudiya